mbokku internetu Sénégal Buzz 221 mbokk yi ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax saa su ne di am mbégte ak kontaante di leen daralal ay ndaanaan wala ay kilifa waaye tey ñu dalal koo xamante ni yaakaar naa ni sénégalais xam nañu ko àdduna xam ko à travers liggéey bu am solo bi nga xamante ne mi ngi koy def ci réew mi yàgg a génnee drapeau Sénégal di ko wane ngir euh, bëggal ñi nga xamante ni ñoo di ay soppeem ak ay fansam di suñu maman Fatou Laobé tey nag moom la ñu dalal fii ci Sénégal Buzz 221 fas yéene séq ak moom waxtaan bu am solo dañu koy bàyyi rek mu nekk mbokk internet yi yaay ñu ngi lay nuyu bu baax di la siyaare. asalaamaaleykum waa Sénégal asalaamaaleykum wa rahmatullah. Mm-hmm. asalaamaaleykum àddina wërëngal këpp asalaamaaleykum diaspora bi fu waay mën na nekk. surtout sénégalais yi ak ñëpp ñu yàlla sàkk ci kaw suuf. di leen nuyu di leen tatagal di leen jox seen wàccuwaay di sant yàlla di julli ci Seydina Muhammad. di gërëm ci sama ñaari waajur di ñaanal xalifa généraux yi nga xam ne ñoo ne ci réew mi fii. te di sunu ay tariqa mm-hmm. ñi fi jiitu te yàlla teg leen ci kaw yàlla na leen suñu borom fal seen yan di rafetlu sa teewaay fii tamit macha allah di gërëm yàlla bu baax a baax di sant yàlla di julli ci Seydina Muhammad macha allah muy kàddu yu am solo yi nga xamante ne noonu la nuyoowee ñi nga xamante ne ñoo ñuy bàyyi xel fii à travers Sénégal Buzz 221 waaye ni ma koy waxee rek ah saa su ne ñi nga xamante ne ñoo di soppeey ak am di jàmm yi nga xamante ne yàgg nga leen a bégal yàgg bégal aussi ñi nga xamante ne ñoo di sénégalais tey nga jàkkaarloo ak ñoom fii ci Sénégal Buzz 221 ah yan kàddu rek nga yëkkati ci ñi nga xamante ne ñoo di soppeey ak fan si yaay. waa soppeey ak fan si maa ngi leen di euh, nuyu di leen gërëm. micro. di xam ne ku bëgg rek doo bañ te boo bëggee nit rek jeex na. Mhm. Euh, fans yi tamit macha allah kenn mënu leen fay ndax ñun tamit bu ñu nekk ay ndaanaan. Euh, di mën di génne ñuy bëgg. suñ defee dara mu intéressé leen bu ñu gisee ci vidéo daal di daw. Mhm. commentaire waxtaan. ah ñoom it kenn fayu leen kenn mu leen fay. wallaay dëgg la parce que artiste bi rek mënul dem. Mhm. sans ay fansam. waaw artiste bi li mu doon. ay fansam ñoo tax mu doon ko. sans ay fans du dem fenn. waaw te kon. ki bàyyi léppam bëgg la. Mhm. gënoo ko ndey gënoo ko bàyyi. vraiment da nga war a gëstu xam ne kii tamit sa soppe la. Mhm. waaw ndax euh, sama maam daan wax naan ki la bëgg. Mhm. jar na daw ba bëgg a dee. sakal ko. suturaal ko. delloo ko njukkal mais ki la bañit jar na sol daal li weñ di daw. ba sori ko. kon nag ki la bëgg kenn mënu koo fay. kenn mënu koo fay. Mhm. macha allah muy kàddu yu am solo yi nga xamante ne rek ñu ngi ko jëmale ci ñi nga ñoo di fan si ak soppe yi. Mhm. mu yàgg leen a bégal ah yàgg bégal Sénégal comme ni ma ko waxee rek waaye yaay. Mhm. Euh, mu doon loo xamante ne aussi ñëppay am mbégte ci jàkkaarloo bi ñu jàkkaarloo ak yow waaye sénégalais yi aussi gëj laa gis ma mama nekk ci ruqama ah, euh, yaakaar naa ne di waaj loo xamante ne xëy na fan si ak soppe bu loolu génnee rek dinañ bëgg mais ci lan la mama nekk bañ gëj kaa gis. elage mhm. man dama nekk nit koo xam ne dama bëgg xaalis. waaw <laughs> te dama ñeme liggéey. Uh-huh. liggéey bi rek moo jël sama temps. Mhm. waaw man euh, femme d'affaires laa. Mhm. liggéey commerce daw rek pour ut dërëm. dërëm nag soo ko dee ut doo am temps. doo am jot. Euh, musique neex na lool. am nañ ci lu ne. yóbbu nañu fu ne. sagale nañu fu ne ku ne taral nañu ci àddina ngir musique ndax musique a tax tey ñu nekk nit koo xam ne au niveau international mhm. kenn dootul laaj Faat Lawbe mhm. musique rek moo mën loolu musique rek mën loolu ba tax na mhm. euh, loolu moom duñ ko bàyyi benn ginnaaw ndax suñu njig laay la ku ñu xam moo tax mu xam ñu ku ñu bëgg tam musique moo tax nga bëgg ku ñu faale tamit musique moo tax nga faale ñu mais nag ak yar yu sunu yaay def ci ñun. Mhm. éducation de base. Mhm. ak ñu nekk ay nit ñu am ambition. Mhm. ah gëj gis gi rek mooy xam nga man damay tukki di dem bitim réew di ñëw. Uh-huh. di jaay. yor bitik. yor benn euh, euh, projet boo xamante ni. Ah, muy ubbi benn société bu tudd. Lawbe gi production. Lawbe gi production. waa te nekk jigéen man ak sama doom rek ñoo ci nekk. à part ay clientes yu ñuy jaay jëndanteel. jaayanteeg ñoom. Mhm. jot amul daal. jot amul jot amul. Mhm. ba pare tamit nekkul dañuy bàyyi chaîne bi noonu dem. Mhm. mais dinañ may xale yi tamit seen change. xam nga nekkul niñ faw nekkee woon lañ fay nekkee bëgg nañ ko nag ndax am. waaye nag jot gi moo ñu ko mayul. jot gi moo loolu rek la mais ñu ngi si jàmm. ñu ngi ci salaam. ñu ngi xalaat ci musique bi. ñu ngi chaque jour buñ toogee ñu ngi xool lan la ñu mën a def. pour suñu ay fans kontaan. waaw ñu ngi sant daal. ñu ngi sant yàlla macha allah muy kàddu yu am solo ah, yi nga xamante ne xëy na moo waral euh, gëj gise bi. waaye li nga xamante ni moo di lawbe gi euh, beauté dinañ ci ñëw ah ngir gën ko euh, wan sénégalais ci lu am solo waaye maman ba tey rek ci suñu doortee waxtaan nga doon koo xamante ne aussi macha allah ci musique sénégalaise da nga ci ñëw ak andi ci touche boo xamante ne xëy na bëriwul ñi nga xamante ni tey ñoo koy indi. Mm-hmm. sa génération nga ñëw imposer dëggal sa bopp ci li nga xamante ni mooy musique sénégalaise ngir sénégalais xam la lan nga ci mën a esprit tuuti ñi nga xamante xamante ne di sénégalais ci sa début ak carrière bi. waaw man sama début dafa metti woon. Mhm. metti na trop. Mhm. parce que sama début dama débuté àdduna di dox mu nekk samay nawle ñu am lu ma amut. Mhm. waaye nag taxul mu utin bu ñaaw. defee ma ko nu ñaawit. man fecckat laa woon. dafa doon fecc. di dimbale sama waajur. ànd ak moom. location sax dama ko doon def. di jaay di jënd. Mm-hmm. donte ni ci kër Lawbe laa juddoo fi laa yoroo fi laa nàmpe mm-hmm. sama yaay jàngal ma liggéey. Mm-hmm. ak commerce. ma nekk ci di daan sama doole. nekk ci musique bi. su ma demee euh, Bale Mansour defi répétition. su ma ñëwee jaay. su may dem répétition damay jël ay bagages yu may jaay def ko sama saak. di def ci musique bi. si showbizu musique bi. di jaay sama jaay naka jekk loolu laa mos sa def sama àdduna mm-hmm. sama yaay jàngal ma liggéey mm-hmm. jàngalu ma ñaan mm-hmm. jàngalu ma tàllal loxo bañ naa ko ba dem sax mënuma ko lu bari mën naa xew ci réewu senegal te ma ci gis parce que damay yaakaar ni benn temps bu ma bàyyi doo ma liggéey rek du ma am lu ma bëgg te dama bari ñu ma yaakaar am famille ñu yaakaar ma am ay xarit ñu yaakaar ma Mm-hmm. am ay mbokk ñu yaakaar ma mm-hmm. te man tamit may ñaan yàlla lu ma am mm-hmm. bokk ko ak samay mbokk ak ñi ma yaakaar di ñaan yàlla lu may am yal na doon lu ma mën a bokk ñépp loolu moo tax mënumaa toog dem naa ba temps bi ma war a am ci musique mënatuma ko am mënatoo ko am ci parce que bu dee bëggoo ñaan bëggoo tàllal loxo bëggoo ñu jéppi la wala ñu xoole la lenn li da ngay bëgg di daan doole rek foo yaakaar ni rek mbir mi fa la nekkee rek nga daw jëm foofu nga daw dem foofu loolu rek moo xaw a jël sama temps loolu moo xaw a jël temps bi mais mm. dinañ ñëw si loolu loolu pour gën a yaatal ci li nga xamante ne aussi euh, idole nga ci ah pour xale yi nga xamante ne ñoo nekk ci musique bi mm-hmm. gëm li nga xamante ne moo di musique ak liggéey jàpp ci dara ah, parce que musique rek euh, du jëmal dara kër mais comme ni ma ko waxee euh, début bi nekkoon loo xamante ne xëy na métti na mm-hmm. métti bi ci loo xamante ne tey boo ko doon expliquer sénégalais yi mm-hmm. ci doorte bi la wala ci ñàkk jàppale bi la wala ci lan nga dundee li nga xamante ne mooy métti bi ci début bi gis day Mm-hmm. début dafay metti waaw parce que yow mi bëgg a dem doon woykat am nga benn ambition na man lii laa bëgg a doon mm-hmm. fekk na booba doole amut dara amut mm-hmm. da ngay ut ñu la xalaat le ñi lay jàppale di la dimbali ah, nga bëgg a génne album exemple bëgg gi def lu rëy te amuloo moyen moyen bi kon début dara yombul. dara yombul dañ naan yoon bi yombul. comme artistes yi ndaw ni koy def waxee. Mhm. yoon bi yombul dafa bëri xaaxaam. Mhm. bëri gàllankoor bëri lépp. Mhm. rawatina ci réew bi ñu nekk muy réewum Sénégal. muy réewum Sénégal. réewum Sénégal li fi nekk gàllankoor. bari na. liy gàllankoor fii artiste. bëri na. li yàqal fii artiste. bëri na. parce que dañu nekk ay africain nekk ay sénégalais. te bëggante amul. wala jayante bari na. wala koo àndal. Mhm. yaa ngi ànd moom intérêt. intérêt wala koo àndal. Mhm. yaa ngi ànd moom ndax siiw na. Mhm. wala am na tur. suñ nekkee ci showbiz bu mel noonu. dina metti torop. dina metti dina waaye nag. nit nag sa liggéeyu ndey ak sa barke baay. moo lay jëlee ci niveau. yóbbu la ci niveau. yóbbu la waaw kon nit lu mu am rek na ko gërëmee ay waajur. ak ndimbalu yàlla suñu borom tamit. waaw uh-huh. ak ñi la bëgg ndax boo defee dara te kenn bëggu la uh-huh. kenn siifru la uh-huh. doo am courage pour dem courage kon ñi la bëgg tamit ñenn lañ ñoo xam ne dañu nekk ci ginnaaw di la puus di la may loxo saa ñoom dara du am sans ñoom dara du am. Ah. macha allah muy kàddu yu am solo ah, waaye ni ma koy waxee rek tey euh, si sa dugg ci si biir musique maman da nga ñëw indi touche boo xamante ne dafa frappé sénégalais ah. Mm. nga ñëw indi leen li nga xamante ne mooy originalité euh, be naka la war a dundee naka la war a nekkee ay seeni seen fem seen i sarañ loolu nga indi imposé ko sénégalais mu saf leen. Mm. pourquoi choix boobu. li choix boobu mooy olof Ndiaye moo ne ko wàcc sa ànd ànd boo dem fekk fa borom. Mm-hmm, mm-hmm. li tax ma fonk culture Mali. Mhm. fonk beneen culture réew. Mhm. du ñu mës a bàyyi seen culture. Mhm. du ñu mës a bàyyi seen culture. ku nekk boo ñëwee doon artiste. mun nga way ci sa culture. mën nga imposer sa culture. gëm sa bopp taxaw ne man man lii laa ci lii laay way. loolu la ñëpp war a def. ndax loolu moo ñuy jëmale kanam. moo ñuy jëmale kanam. mais man bu ma bëggee ñëw juddoo Sénégal. Mhm. di doomu lawbe. Mhm. dem bëgg woy séeréer te dégguma ko du yomboo. Mhm. wala dem bëgg jël culture américain indi ko fii. maa ngi koy jàngal samay doom ak suñuy xale. dëgg la. bala bëgg a dem jëli culture Nigéria indi ko fii. indi ko fii. maa ngi koy bëgg jàngal samay doom te du sama culture. sa culture. moo tax chaque jour. Mhm. artistes yi. Mhm. war nañu bàyyi xel ci sunu culture ñun. Mhm. ñun sénégalais. ñun sénégalais sunu aada. sunu cosaan. sunu culture. ci sunu làkk. ci sunu làkk. bañ kenn. ndax ku nekk ak wërsëgam. ku nekk ak wërsëgam. Michael Jackson. bi mi ko yàlla di may dund ak succès. royul ci kenn. ci langue américaine la doon wax anglais. culture am la doon def la mu gëm la doon def ba tey mu nekk international keneen noonu keneen noonu kon na nanu gëm ni nit ku nekk ci li nga nekk ci loolu nga war a mën a nekk yëkkati sa loxo gëm sa bopp nag xam ci yoon bi ngay aw ba doon li nga mën a doon waaw muy lu am solo ah waaye aussi bi nga ko indee dafa am sensibilité boo xamante ne dafa laal sénégalais yoo xamante ne bëriwul woon ñuy gis ñu koy fësal ah, ci ay yoo euh, xamante ne ay baaxu jigéen la mais nga ñëw indil ko sénégalais bi nga ko indee sénégalais retour bi nga ci am lan nga ci lan nga ci am yow. waa sénégalais yëpp ñoo ko bëgg. Mhm. ndax man ku ma xam xaw ma ci xam ma ci fer. Mhm. cuuraay sër. Mhm. lépp li nga xamante ni moom la jigéen di jëfandiku ñome. ci loolu la ma àddina yëpp xam. Mhm. te loolu laa fekk ci suñu biir kër sama maam loolu doon jaay. Mhm. sama maam bi muy jaay man maa nekk ko man maa doon gàddu. Mhm. pañeem bi mu naan jaayee cuuraay. ma jiitu mu jiitu ma topp ci moom. loolu rek laa xam ci suñu kër. loolu mooy sama cosaan. mooy sama aada. te it man man Fatou Laobé man li ma xam rek loolu laay def. man demaguma ci dara loo xam ne lii du sama culture wala lii du sama aada ma defi ko. déedéet bañ naa ko ba sax ba mënuma tricher. mënuma ko. li nekk ci man rek loolu laay wax waaw macha allah muy loo xamante ne aussi marqué na sénégalais yëpp ah mm. waaye ba tey rek ci li nga xamante ne maman euh, bokkul ta tamit ci li gën a marqué sénégalais yi muy premier single bi nga xamante ne aussi moo di doole euh, liggéey boobu noonu nga ànd ci ak ñi nga xamante ne ñoo nekkoon sa ginnaaw jamono jooju aussi euh, pour gën a progresser li nga xamante ne moo di carrière bi liggéey boobu aussi nga doon jigéen war a ñëw ci showbiz bis a def clip naka nga ko daan dundee ak ñi nga xamante ne ñooy say famille rawatina parents yi. waaw jëm ma dugg ci lu ma mënut. bës jaralu yenn yi. noonu laa defe woon sama culture. waaw noonu sama culture. gis ma. ak Bouba Ndour ak Ngoné Ndour jël ma. ma def ak ñoom ñetti album. ginnaaw bi nag may demal sama bopp. may sa bopp. di fent samay way. di teg samay way. lu ma way maa ko moom. Mm-hmm. am ambition rek. Mm-hmm. gëm sama bopp. Mm-hmm. ba génne sama neuf album. ba génne sama neuf album. waaw léegi nag macha allah bientôt bëgg a def retour de law Lawbe. waaw set mai incha allah. le 7 mai. laay ñëwaat ci géew bi. dinañ ci ñëw incha allah muy événement boo xamante ne aussi sénégalais yëpp a ngi koy wàcc ah. le retour de maman Fatou Laobé loolu moom mm-hmm. euh, xam naa dina euh, neex sénégalais yi lool mm-hmm. lool lool lool lool. mais aussi am na beneen euh, point boo xamante ni tamit dinañ ci laal ah, ci gëj a gis bi nga toog ba jamono ji nga xamante ne Covid 19 bi mu ngi ci réew mi ñuy ñaan suñu borom jëlee ko fi waaye nga defaat beneen tëll boo xamante ne aussi waaye ci li nga xamante ne mooy Covid bi mu marqué waat sénégalais yi moment. Ah. xam nga jamono boobu nit ñi dañuy woon. Mm-hmm. ndax ku ne xam na ni ñun ñu ci bëri ñun fekkewuñu jamonoy mbas. waaw. dañ ko daan dégg rek. Uh-huh. yàlla indi ko ci suñu biir. Mm-hmm. ñun ñëpp ñuy woy li ñuy woy leen la benn woy la mooy corona. Mm-hmm. say clip fooy taxaw. Mm-hmm. yaa ngi dem ci hôpital wala clinique. yaa ngi génne balankaar yi. wala sapeur pompier. Uh-huh. ah. Uh-huh. yaa ngi génne docteur yi. wala dara. wala dara. ma bëgg mu ñëw mu am différence. Mhm. ba pare daqale stress yi tuuti. Mhm. def comédie tuuti ci biir. ci biir macha allah. Mhm. yàlla dogal nag mu wër àddina neex ñëpp. saf ñëpp. gaa yi commencé challenge. Uh-huh. mu wàññi tuuti stress doomu aadama yi ñu yoroon. stress su takk masque. stress su état d'urgence. Uh-huh. couvre-feu bi. te xamuñu ko. te xamuñu ko mosuñu ko dund. ah mosuñu ko dund. mu nekkoon benn maman boo xamante ni kenn dootu ko fàtte. Mhm, mhm. suñ nee coronavirus rek. Uh-huh. nañ fàttaliku ne. Mhm. lii la fi fàttaloo bi defoon lii la fi fàttaloo bi defoon. Uh-huh. loolu aussi naka nga dundee coow loolu buzz bi succès bi donte ne euh, comme ni nga ko wexee rek buzz yóbbu la mais mu doon loo xamante ne aussi xëy na gëj nañ la dégg mais nga ñëwaat rek defaat ci biir wi. non dara. ma ko dund ma ko war a dundee rek. Uh-huh. challenge bi neex na ma. waaw nit ñi dañuy dàq stress kontaan. loolu moom daf ma neexoon vraiment. daf la neexoon loolu laa ci bëggoon te loolu laa ci am. Euh, jo jooy jooy. waaw liggéey bi naka la naka la demee. non dugal comédie ci biir rek. Mhm. waaw dugal comédie ci biir. ndax man xam nga ni boo dee fàttaloo bi cuuraay nga xam ne ak yooyu. Mhm. imaginel ma war a nekk ci bureau bi. war mhm. doon médecin bi. waaw bu jigéen. nga gis ne ma maa ngi ràngoo samay yëf takk samay gaa. Mhm. kon war na ne war ne kon foofu ma fa amee malaat dama ko war a xool. Uh-huh. Ah? Uh-huh. kon nan laa war a comporté woo. Mhm. ba pare feebar bi feebaru jooy la woon. waaw dañ doon méttitlu mhm. di jooy. xam nga di wane nit ñi suñu naqar. ak li nga xam ne moo ñu nuy si. kon dañ ko war a jox gëddaam dañ ko jox gëddaam rek. mu jàll. mu moo tax jàll na ah Sénégalais yëpp gis nañu originalité bi nga xamante ni liggéey bi am na ko ah. ñu la ci encouragé bu baax a baax a baax a baax a baax waaye maman euh, Sénégalais gëj nañ la gis ngay wàcc bés boo xamante ni xëy na Sénégalais yëpp a koy wàcc ah di ñaan suñu borom yóbbu ñu ceeg jàmm muy le 7 mais événement le 7 mai événement boobu nga war a defaat sa retour ci biir Sénégalais si luñ la gëj a gis ah Pathé Lobé ci kaw seen naka ngay waajee loolu ak lan nga ciy wax Sénégalais. Ah, loolu damay wax Sénégalais yi bu ko kenn manqué. yal nañ ci yàlla yóbbu ci jàmm ak salaam. amiin amiin. te kenn bañ ko manqué. Mm-hmm. yal na fekk réew mi yépp ne ci jàmm ak salaam. amiin waay amiin ñu ko te fekke ko. Mm-hmm. bis la boo xam ni. Mm-hmm. man retour de Fatou Laobé laa ko tuddee. retour de Fatou Laobé dootuma gëj a a gis ci chaîne bi. Uh-huh. te dootuma gëj a génne album tamit. sama retour lay doon. sa retour lay doon incha allahu rabbi. di bis boo xam ni dama si organiser. di def non violence. fête aux femmes. ci sargal Bamba Fall mm-hmm. ku ne xam sama diggante ak moom mm-hmm. ànd ak moom mm-hmm. ci campagne yi dégg lu ne uh-huh. gis lu ne uh-huh. yàlla may mandam nam ndax kat ku yàlla fay sa xol nga mer booba dangaa leblewul lu baax wallaay dëgg yàlla may mandam ci Bamba Fall yàlla may mandam ci baarakay yi kontaan lool ah. war leen a sargal nag uh-huh. Bouza Seck le 7 mai. le 7 mai incha sargal jigéen ñu bëri. Mm-hmm. di ci sargal ñëpp. Mm-hmm. di ci sargal ak sax. Mm-hmm. dama ci sargal waali. dama ci. waaw loolu na ko génn dama ciy sargal Pape Diouf. di ci sargal Sidi Diop. di ci sargal artistes yu bëri. di ci sargal fii ci ma dëkk ci banlieue bi. jigéen ñi surtout ñi nga xam ne ay femmes braves lañu. foo leen fekk. ñu ngi ci natt yi ñu ngi ci mbootaay yi ñu ngi ci lépp luy suqali seen koñ. di sargal ñu bëri laa dama leen ci sargal. macha allah muy loo xamante ni sénégalais ñu ngi koy waaj bu baax ah yàlla na ci suñu borom yóbbu mais comme ni nga ko waxee rek ah sànq boobu euh, sénégalais demoon nañ sax balaat ndax Mama Fatou léegi politicien la ndax ni nga ko waxee ah ñi nga doon ànd say frères ci politique man euh, mhm. su may def dara sama doom waaw dama ciy dem ba jeex mhm. man su ma nee yow la rek yow la yow la su ma ànd ak yow ci say fit dafa am benn amour bu ma ciy am mhm. boo ma xoolee noonu laay jëfee noonu laay waxee noonu laay doxee. Mhm. xam nga politicien de. Mhm. mais sama nit moo xewle woon. sa nit moo xewle woon. sama nit moo soxla woon. ma mhm. ànd ak moom. ma ànd ak moom. ma féete ko fi mu ma doon féete. noonu laa doxee. noonu nga doxee. waaye man du ma politicien waaye doo politicien. néew na looy gis ci la ñuy ab ci dem doo ma ci gis. dool nga ci gis déedéet. macha allah muy lu am solo waaye amoon na polémique boo xamante ne aussi juddu woon na ci campagne yooyu de loolu aussi naka nga ko dundee ci fecc bi nga xamante ne yaa ngi ko doon fecc. gars yi ko fecc bi sax garaawul ku ne xam ne Fatou Laobé lëmbat rek lay def. waaw. mais ki ma filmé. Mhm. moo ko garaawal. moo ko garaawal. moo ma filmé. Mhm. zoom ko zoomin bu ñaaw. Mhm. dugal ko. moo tax. damay def attention bu baax ku may invité léegi wala ku may génn ci caméra mhm. Mhm. am. na solo. am na solo. ndax des fois nit bëgg laa film filmer la. Mhm. génn la ci système sabotage sax la ci jublu sabotage la ciy pour am ay vie. pour mu doon bës. fekk moom mi ngi yàq sa der. mi ngi lay saboté. mi ngi lay yàqal. ki ma filmer jour boobu. xaw ma Medina kii la xaw ma TV. mais daf ma saboté. daf la saboté ça fait l'occasion ah nga mën a cee profité wax ak sénégalais ndax saboté vidéo bi génnee gis ndax saboté ma mënut a passé ah, ah. lëmbal lëmbal la rek sama doom fecc rafetul mhm. benn fecc dëgg la loo rafetal mu rafet dëgg loo ñaawal mu ñaaw mhm, mhm. waaye ki ma filmé site bi ma filmé moo ma saboté moo la saboté ah. ndax nit dana ñëw di la jël yaakaar ni soppeem nga mu lay filmé nga yaakaar ni bëgg na la fekk bu pare daf lay saboté bëri na fi wala bëriwul. bëri na fi bëri na fi waaye nag loo dundul doo mën a xam. Mhm. waaye man. Mhm. damay jeeg bu baax. waaw di yaay ju baax dëkk ci dëkk bi. Mhm. du ma bordel. du ma def lu bon. du def lu ñaaw. artiste laa nag kenn mënu maa tëree lëmbal. damay lëmbal ba géej gi des gënoo walaat nit ku yàlla sàkk ko suuf munoo ci dara. damaa xam ne ñi ma doon wax ñi doon wax. di ma jéem a dépassé. du ñoo bëgg ku commentaire ci ñoom. Mm-hmm. duñ ko am ndax mm-hmm. du ma seen kalaas mm-hmm. waaye ñoom ñooñi duñu fexe ba seen ndey gën ma seen ndey fuñ taxaw bu ma fa taxawee kenn xool seen yaay waaw ndax man damaa jur ay doom waaw jur samay doom yu mag doon kilifa mais bul fàtte ni man artiste la artiste la sama liggéey laa doon def liggéey bi ma doon def nag mën naa cee juum waaw ndax ku dul juum amut dëgg la du dëgg dëgg la te boo juumul doo mën a xam ndax juum nga. Mhm. waaye nag sa noon dina ci profité. Mhm. ngir bëgg a tilimat sa der. ngir bëgg a tilimat waaye ndakaaru gi aw ma fi xas. Mhm. kenn mënu maa xas. du góor. jigéen. wallaay dëgg la barka yonent kenn mënu maa xas. kenn laa xas nit du ma xas. nit mënu maa tuutal. damaa juddoo fi ma war a juddoo. màgge fi ma war a màggee. yoro fi ma war a yoroy. doon jigéen. bëgg sama bopp respecté sama bopp wekk sama bopp. fayaw ma sama bopp fayaw sama dara. kenn yabu ma. def naa sama aar ba toll fii. kenn yabu ma. kenn du ma joxoñ baaraam. kon ku ma bëgg a tilimal yaa tilim. yaa tilim waaye man tilimu ma. man Sénégal yëpp naw nañ ma. ndax sama jikko sama dëgg. fu ma fekk loolu laay wax. te seen tewu ma. ma ay àndandoo ma sama tànk gàtt na lu ma wax tey bu subaa boo ma ko laajee ma dellu ci kon man ku ma mën a tilimal lan laa def lu ñaaw ci dëkk bi lan laa wax lu ñaaw ci dëkk bi man tuxuma naanuma kenn bettuma ak jëkkëru jàmbur jëluma alalu jàmbur jaayuma dorog lan la ma nit mën wax lu ma naqari ku yaakaar ni mën nga ma wax lu ma naqari ndax nga sa bopp bu ci taxaw di commentaire ak ñi nga xamante ni dañoo toogoon yor seeni kii di wut ay buzz ak maanaam di wax defe na mën nga maa wàññi ndax nga sa bopp tegal sa yaay mu taxaw ma taxaw ñu xool ndax sa yaay ma gën foofu rek laay tontoo li ci des nag mooy kuy dund kuy dee ak noo mën a mel fii ak maa ngi dund sama bakkan baa ci man damay lëmbal ba mu neex ba ku na naqari génn réew bi wala nga bañ koo teg man xale duma conseiller parce que xale mënumaa conseiller je suis grande dame xam sama bopp waaw waxtaan ci li nga xamante ni tey moo di euh, euh, sëy parce que à chaque fois gis nañ message yi am solo yi nga xamante ne yaa ngi koy jox ci jigéen ñi waaye aussi seen li nga xamante ne da leen gunge seen biir néegu sëy nga ciy yëngu di ci def loo xamante ne aussi Sénégal yëpp xam nañ la ci tey nga gis sëyu Sénégal ni mu mel surtout ñi nga xamante ne jamono ji ñoo di artistes yi ñoom lañ jox ñu ñoo siiw euh, dañuy dugg ci sëy waaye seen sëy du yàgg euh, à chaque fois sénégalais di leen joxan li nga xamante ni moo du baaraamu tuuma ngay yaay tey li nga xamante ne ñu ngi leen koy teg ñoom artistes yi si nangu ñu sëy wala bu ñu duggee si sëy du ñu ci yàgg lan nga ciy wax ñi nga xamante ne aussi ñoo di sénégalais waaw loolu am naa lu ma si xalaat parce que dafa sëy nag boo ko siiwalee bu baax a baax mm-hmm. cat da ci dugg sëy Wolof Njaay moo ni cat bu rayam day semmal mm-hmm. te en général sëy bu siiw uh-huh. ñu naan maye nañu lii def nañu lii rek mm-hmm. day am cat day am cat mais nag dañu war a jàng sëy tamit ñun jigéen ñi bañu dugg ci sëyu intérêt lu yàgg sëy nit ki ndax am na xaalis du yàgg du yàgg sëy ndax nit ki kii mën na ma génn ci situation yi ma nekk. Mhm. du yàgg. du yàgg am na jigéen ñu bëgg ñu nàppaaral. Mhm. bu ñu gisee góor am xaalis. Mhm. sëy rek la bëgg a def ak moom. waaw pour lekk tuutam. waaw du dëkk bëri na am na ñoo xam ne du ñu bëgg. intérêt boo leen dugal ci sëy bi. mais sëy boo bëggee nit ki. te yàlla tax. mu bëgg la te yàlla tax. mu leer na kii mën na laa sëy. te def te mbuus du def lu gën pepp. boo fa duggee da ngay boo fa duggee di nga toog. sëy nag yàllaa koy tas moo koy takk mm-hmm. ci aras mm-hmm. moo koy tas mm-hmm. ànd dagan na dàqali koo dagan na mais daal liñ ci mën a jàngat bari na bari na euh, tey bu doon euh, ci góor ñi koy jàpp parce que ñu bëri dañoo joxe xale jigéen ñi baaraamu tuuma ñu doon nangootul sëy loolu góor ñi ak góor ñi ak góor ñi dañ yor seen alal yor seen dërëm xam ne xale bu jigéen bu bëgg xaalis nga ñu xemmam la waaw dañ xoymat xaalis bi dina ko wan di la mhm. tàmmal xaalis. Mhm. xemmem la rek bëgguñu la. xemmem xam nga bëri na góor ñoo xamante ni. Mhm. ñuy xemmem jigéen. waaw bëri na. am ñoo xam ne dañuy xemmem jigéen. dañuy gis jigéen rek. am wangam. mbaa sax nga dem defi sa opération. defar sa kanam. defar say ange mhm. defar sa biir xam nga loolu dafa xew léegi ci xale jigéen yi mhm. soo bëggee am am beneen nouvelle vie noonu ngay def waaw waaw mais yooyu yëpp xam nga après mhm. da ngay xool ni àddina jaru ko jaru ko nit ki da nga war a naturel du dëgg ñun ñi ñëpp ñaan nañu yàlla doon ay ndaw ba doon ay mag doon ay kilifa waaw natt loolu waaw te ba pare lu ne xaj ci te loolu moo tax sax alal boobu ak xaalis boobu ak mm-hmm. bëgg jëkkër ju bees mm-hmm. moo tax sa xale yu jigéen yu bari dañuy dem defaruwaat mm-hmm. opération xëcc seen kanam xam nga soo màggatee mu gën a metti mu gën a metti soo màggatee da ngay gën a ñaaw da ngay gën a ñaaw war a bàyyi man ni ma demoon tey jël sama bakkan bi guddee ko ba mu gudd sama yu kii yii waaw comme ah? koy defee léegi waaw uh-huh. wàññi sama biir woon gi ma yokk ko damay amaat jëkkër mhm. bu bees tàq mhm. ndax beneen nouvelle fuy laay am mhm. du dëgg mais bu ma demee ba war a màgg dëgg-dëgg damay gën a ñaaw da gën a ñaaw ah loolu war a ba doon na ko màggat chaque jour yaa ngi ciig ciig yi yaa ngi ciig fekk yow la ca biir xam nga ko yàlla du def dara muy fausé ah nañu def góor yi dañuy xemam jigéen bëggee la bëgg xemmem rek. waaw bëgg a nekkat ak yow benn weer ñaari weer. Mm-hmm. proposé la takk. Mm-hmm. may la xaalis. Mm-hmm. séeg yow xam yaay kan ne la yarax. yóotu sa morom. am na fi góor ñoo xam ne tey mën nga leen a lu ma ñeenti jabar yoo xam ñoo leen takk ba leen. seen vice la kenn mën ko dindi ci ñoom. mais am na góor ñu baax ñoo xam ne. ci réew mii. Mm. bu ñoo la yoree. nga doon jabar dëgg doo xiif doo mar doo rafet mhm. doo manqué dara mhm. te dañ lay am fuñ la jëlee mhm. am fuñ la yóbbu sa dara du manqué loolu olof Njaay di wax ni jëkkër da lay boot nga ni noonu sa dara du lànk waaye koo xam ne dalaa xemmem xemmem sa taat say na yàlla baal xemmem sa forme say xootu taat xemmem la rek bëgg a xam loo saf may la àll jeex mu leer ni yow kii jabar a war a dàq. Mhm. laa xeebul kese. Mhm. seen sëy du neex. seen sëy du neex te boo dematee ba bëggatul day metti ci yow. day metti ci yow yow ko jigéen gi boo dematee ba bëggatoo. day metti ci yow. day metti ci te mbëggeel. Mhm. ak séq sëy ci bu ko forcé. njëkk yi rek la bis yu mujj yi. day metti de. day metti ndax mbëggeel nekkul fa. dëgg la macha allah mu ngi mel ni ñu la lal ba pare. def ci ay pont. du neex tëdd lu mu rafet rafet. ak lu mu yaatu yaatu. Mhm. tëddin ba du neex. tëddin ba du neex. loolu la. macha allah mbokk yi muy message bu am solo boo xamante ne xëy na ñi nga xamante ne ñoo nekk ci néegu sëy mhm. muy góor ñi di jigéen ñi war nañ cee gën a bàyyi xelan ah, ngir mën a sàmmaat bu baax li nga xamante ne moo di sëy mhm. waaye aussi euh, maman dinaa ñëw ci savon ya waaye damay ñëw tey rek euh, musique sénégalais jamono jii. ni nga xamante ne artistes yi ñu ngi koy dundee showbiz bi clashante fii gars yi du joxeñ baaraam Wally Seck Sidy Diop naka nga gisee musique bi ni ñu koy dundee léegi ak yéen seen jamono daanu leen ko woon dundee noonu. man yooyu sax mënuma ci commentaire. Mhm. ñoom ñaar. Mhm. mënuma ci commentaire. Mhm. mais xam naa ni daal. juddu bu rëy ndey ak baay la. fulaak fayda borom. waaw loolu daal xam naa ko. loolu xam nga ko ci. Euh, geste bi nga xamante ne aussi Wally mi ngi koy def ci ñi nga xamante ne ñoo di magu artistes yi récemment gis nañ ko ak suñu maam Xar Mbaye ma jaaga muy social ah, seeti ko yooyu acte naka nga ko gisee. rafet na. Mhm. Mhm. noo mën ko gisee. waaw rafet na de. Mhm. macha allah muy lu am solo ah, euh, li nga xamante ne nag aussi moo di euh, euh, lawbe bouti mm-hmm. bëgg naa ñu ñëw ci ci produit yu am solo yi nga xamante ne yaa ngi koy def euh, di ci béggal sénégalais mm-hmm. waaw gis nga po yu am solo yi maman yi yàlla lii saabu lawbe gi bouti la saabu bi nga xamante ni kenn togg ko mm-hmm. saabu naturellement rek la boo xamante ni ay saabu de marque la danga koy sangoo muy raxas sa tee ba mu set amul acide Mm-hmm. amul dara togguñu ko def ci ay meew ak ay mm-hmm. diwtiir rek lu ne mm-hmm. xam nga réew mi léegi bëgg a jaay diw ñëppay jaay diw ñëppay jaay diw Samba Demba Paate ñëppay jaay diw uh-huh. mais réew mi tamit xam ni ñuy jaay diw yu baax waaw waaw fii ci law bëgg bote lu baax la ñuy def parce que ñun moom la ñuy diwoo moom lañ ciy def saa yoo bëggee bàyyi bàyyi saa yoo bëggee diwu diw saa yoo bëggee diwu diw waaw uh-huh. fi mu nekk nii gëj naa diwoo xeesal waaw ah? te maa ngi am sama teye bu rafet macha allah te lawbe gi boutique aussi yamul ci savon yi rek ah mi ngi ci yi nga xamante ne moo di fer yeeg yeneen ak yeneen nga xamante ni jigéen da koy bëgg dañuy ñaw mhm. ay fer mhm. ay cuuraay mhm. et lii mooy suñu crème rouge donc lii mooy suñu lait de corps lii mooy suñu lait et mépilé pour tànk ak loxo <laughs> ah, kon gis nga ne gamme la jaay boo xam ne macha allah. am nañu gamme bu ndaw am nañu gamme bu ndaw bu mag bu mag képp koo xam ne nga bëgg sa tey set mhm. te li ngay diwoo du am benn produit chimique mhm. ba pare doo dem ba nga xamante ni da nga ciy bëgg a génn mu indi la ay effet secondaire mhm. fii ngay ñëw ci law bu ki bouteille déggee produit chimique mooy jël ay produits yi nga xam ne diw taxu koo jot nga def ko ci diw nga def ko ci pour nga diwu weex tàll la te des fois nit ki ne la ñetti fan nga xees becc mais ah boo diwoo ñetti fan xees becc après résultat bi lan lay lay indi. waaw ah, du yomb ci yow de. dina metti de dina metti lool dina metti kon def lu ñu war a def te defee ko ci def mu rafet. Mhm. bañ a jaay nit ki rek après mu am ay problème mhm. allergie ay effet secondaires. Mhm. nañ ko sóoraale. nañ ko sóoraale parce que ñi ñuy jaay diw. Ah. suñu mhm. lu am solo ah, loo xamante ne aussi bëgg nañ sénégalais yi nga xamante ne ñoo bëgg lu baax. Mhm. rawatina suñu mbokku jigéen ñi ah, nañu ñëw seet suñu maman faat lobe ci yu baax yi nga xamante ne. Mhm. indi lu la ko sénégalais ah moom nee na bëggul benn sénégalaise bu ñaaw dafa bëgg xale jigéen yëpp rafet ah. bëggul aawaay am wujju bëgguñ tamit ñaareeli chemin moom daal bëgg na ñëpp kontaan ci jigéen ñëpp kontaan <laughs> jigéen day xajam. jigéen day xajam dëgg la jekk boo boo reewee mu rafet. boo reewee mu macha allah ndax yàlla moo ma ko jagleel yàlla moo leen ko jégle la ah. muy lu am solo mbokk yi di fàttali rek suñu maman Fatou Laobé tey la ñu dalal fii ci Sénégal Buzz 221 ah, seqoon ak moom li nga xamante ni moo di waxtaana ah, laal ci point yu bëri mu indi ñu ci ay leeral ñu koy kontaanee aussi di mbég baax ci disponibilité bi nga xamante ne may nañu ko tey ñu jàkkaarloo ak moom dama lay bàyyi rek euh, nga joxe li nga xamante ni moo di dernière carte bi jël naa sa temps ñu daal di tàggatoo waaw maa ngi gërëm di sant rek di la gërëm di la hmm. dëgg la euh, di ñaan yàlla rek mooy ñu jàmm ak salaam tawfiq ak taysiir amiin amiin suñu borom defal ñu lépp lu waaye bëgg defal na ko mm-hmm. yàlla indi jàmm ci réew mi ku ne am jàmm amin amin lay ñaan di ko ñaan di ko ñaan mbooloo mu jullit ah. di ñaan sama doom day faatuloo bay ndax xale bu am jom la nangoo liggéey mm-hmm. macha allah waaw mooy PDG. mooy PDG. Beauté. Uh-huh. mais macha allah. macha allah ñu ngi leen nuyu bu baax suñu sister waa Sénégal Buzz 221 nag loo leen di tàggoowee. xanaa di kontaan rek. Uh-huh. waaw kontaan di kontaan. waaw macha allah mbokk yi di kontaan bu baax a baax a baax ci jàkkaarloo ak moom di di jox di daje ci beneen numéro jërë ngeen jëf.